bismillahi arrahmani irrahim an abi zeyd amr ibni axtaba radiallahu an jëleen nañ ci suñ sang abu zeyd turam mooy amr ibni axtab yal na yàlla gërëm ko qaala salla bina rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam alfajra nee na yonantu sallallahu alayhi wa sallam jiine jiite nañu jullik fajar wa saidal minbara bim noppee yéeg ci kaw minbar fa xatabana mu xutba ñu xata xadarati zuhr ba tisbaar jot fa nazala fa salla mu wàcc jiite julli tisbaar thumma sa'ida al-minbara topp mu yéegaat minbar ba fa xatabanaa xutba ñu xataa xadarat al-asru ba tàkkusaan jot thumma nazala mu wàcc fa sallaa julli maanaam jiite ñu tàkkusaan thumma sa'ida al-minbara topp mu yéegaat minbar ba fa xatabanaa mu xutba ñu xataa garabati shamsu ba jant so fa axbarana mu xabaare ñu bima kaana ci lu mosa nekk wa bima huwa kaayinun ak lépp lu dana nekki fa aclamu naa ki ëpp xam-xam ci ñun daal axfadu naa mooy ki gën a mokkallam ñu jàngal rek rawahu muslim hadis jàng ci muslim xadis ji mi ngi wane ne yonentu sallallahu alayhi wa sallam yàlla xamal na ko xam-xami way njëkk ak xam-xami way mujj waaye yamut ca moom yonentu xamal na saxaabaam yi li mu weesu ci jamono ak li dana dikki yépp muslim E téeréem ba saxiixam ba daf ko buntal baabu ixbaari nabi sallallahu alayhi wa sallam fi ma yakunu ila qiyaami saacati xamale gi yonentu xamal saxaabaami xamal gi yonentu xamal li wara a am ba bés di taxaw kon ñi naan yonent bi xamut ko yàlla rek ko xam wax nañ dëgg waaye waxuñ dëgg wax nañ dëgg ndax yàlla rekk moo ko jagoo moo ko moom mm, ku ko neex xamal ko waxuñ dëgg suñ jubloo ne yàlla xamalut xay bu yonent bi sallallahu alayhi ndax li weesu ak liy dikki yépp ci li war a xew xay la yàlla kotta ko xam lu dul kum ko xamal te yonent bi ci ñam ko xamal la bokk wax na ne yàlla xamal na ma xam-xami way njëkk ak way mujj kon nag wax na yonent bi xamut xaybu euh, jublu ca ne xamu ko mutlaqan du dëgg boo ca jubloo nag ne yàlla koo xamal mu xamal ko mu xam ko dëgg la waaye loolu amatul sens ndax xam na ko rek yal nañu yàlla xamal te defal ñu topp ak rafetuk topp hada wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama amin